Ramadan ñëw na weeru Qur'an ñu ànd a ngi baytul Ramadan a ngi baytul atfal رمضانني بيت الأطفال رمضان waaw yow foo jógee nii. dañoo dem ci. yow da ngaa demoon sëmb. waaw gis nga ni nga def sa yaram bi ni mu tilim mi nekk si xanaa jàngi woo. Eh. jàngi woo rek nga dem sëmb mënoo toog fii ubbi sa kay jàng. dama demal ci salle de bain yow nga defar. sabab bu la jàppee da lay damay jàng dafa am exercice yu may def. fu ñu la fekk yaa ngi exercice. ah exercice yi bëri rek la ñuy def. waaw maman. naam que ren dama ah, ah, war a woor koor gi yëpp. ah pourquoi pas. ah damaa gis ne que man aw ma habitude di woor gi yëpp ay 15 jours wala di jours laa daan loolu sa maam moo la ci daan bàyyi sa mool ci daan bàyyi sama yaay moom day yàq xale mool daan def boo waree tey bu subaa ma la noppal waaye ren jii nekkatoo xale magum jëmm nga defal ne sa bopp magum jëmm nga war koor gi ba mu jeex incha allah bu la yàlla mayee wér amoo benn ngànt bu la tëy waral koor gi hmm? mm-hmm. mooy yoon wax ma loolu mbaa yaa ngi góorgóorlu waaw maa mm-hmm. dama laa tuddee ku ku sori ku sori ku sori ci man koo xamante ne kenn la woon ci man te nit nag bu ñu la tuddee ku baax boo ne dabee jikkoom yépp fexeel sax nga am ci ay jikkoom yi nga jël tuuti Zeyna Fall soo fekkante woon ak moom jamono wala nga miinoon ko du la jox mbindeef moom ma laa lay jox mu yaral ma la ndax jikkoom doy na ma waaye yàlla weddi na waaye jëfam yaa ngi fi tege Zeyna ku ko umpale rek yow la neex internet baa bi fi boo tàppoon Zeyna Fall léegi ñu indi la waxtaanam ci ba muy débuté ba ni muy génnee àdduna te bis boo jëlee benn misaal benn boo jël rek misaal la jànga jàngale la bëgg naa nga góorgóorlu bu baax bëgg naa ku may wax ci yow rek fekk lu baax la may wax ci yow bëgg naa su may dégg ci yow rek fekk loo xamante ne nii dama koy tiituru waaye bëgguma dégg ci yow loo xamante ni safaan la su see dégg incha allah góorgóorlu ci sa jaamu yàlla nga góorgóorlu rafetal sa diggante ak sa jullitu moroom yi parce que moom noonu la fi nekkee woon dégg nga góorgóorlu yàlla baax maa ngi ci biir ngaa gën si. السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وعليكم السلام ورحمة الله عائشة بابا ما عندك dafa amal loo xam ne il faut nga leeral ma ko dama si doon weerante suñu benn waa classe. Ah, bëggoon ma leeral la moom nee na am na huit ans te ah bien sûr warul woor kay. waaw euh, léegi xam nga dafa am ñu war a woor ak ñu warut a woor. loolu moo que dama sonn si weerante bi. léegi diglu ma leeral la ñen ñoo war ginnaaw bi yàlla suñ borom farataalee koor wax yaa ayyuha allazina amanu kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala allazina min qablikum laallakum tattaqun ginnaaw bi mu farataalee koor ba pare daf cee teg mu ni chahru ramadan allazi unzila fihi alquranu hudan linnas wa bayyinatin min alhuda walfurqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kaana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra ndaka noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na Euh, ñi war a woor ak ñi warta woor bokk na ci al muslim al baalix al ñi nga xam ne dañoo war a woor bokk na ci nga nekk jullit tout d'abord pour nga nekk koo xam ne danga war a woor ci woor diine mooy da ngaa nekk jullit nga nekk ko am xel nga nekk koo xamante ni demoo fenn tukki woo dara daru la feebaroo dara daru la moo tax aaya ni fa man kaana minkum maridan aw ala léegi nag bu ñu ki nga xamante ni bii al aqil al qadir al muqiim ki nga xamante ni bii nag yow tey jii nii matagul pour say at egg fi nga war a woore mooy ki nga xamante ni bii matagul am bàkkaar loolu nag tekkiwul ni waroo woor de forcément de mais koor gi du force maanaam yow nekkul loo xam ne man nga ko même boo wóoru sax doo ci am bàkkaar waaye tamit taxul xale war nga woor pour góor góor lu tàggat sa bopp nànk-nànk ndax lan la yonent waxoon ci xadiis bi rufi al qalam an salaasa mu tekki ni wa ani sabiyi xattaa yaxtalima nee na yàlla suñ borom rocci naa li nga xamante ni mooy biggu bindal ki nga xamante ni bii moom ay atam tollagul ci fu muy amee bakkaar rufi al qalam an salaasa bokk na ci ñett ñooñu ah, xale bu ani sabiyi xattaa yaxtalima maanaam ki nga xamante ni bii xale la ba keroog muy mat lan mu kàllaf donc kon képp koo xamante ni bii matoo mu kàllaf yow koor walu la donte ni yéen li tax ñu leen di woorloo mooy pour bëgg lan ngeen góor góorgóorlu léegi sa xarit boobu boo koy boo koy boo koy laay biir loo koy mooy na woor ndax su wooree dina ko jàppale su ne ba nekk mag bañ nekk mag ñàkk jom yooyu nekk si garam place ah, di lekkantu di naanantu di ndékki fu nekk ñu dugg fa dégg te yéen bëgguma ngeen mel noonu nee ko yow da ngay woor chaque jour comprendre nga muy woor même su fekkee am na huit ans sax nay woor mu góorgóorlu dégg nga. merci beaucoup papa su la amutoon xaw ma lan laa def papa mel ni yow gis nga merci dégg nga. man maa dem si nem Xadija. waaw baax na man maa ngi fi damay réviser alquran. booloo teeru koor Ramadan a